nu dem ci sunu baax ni nu ko baaxoo def di ubbee sunuy wax waxi ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul moom mi wax ni wa wahaba lii xayra kulli li bi yawmil arbaa yi le bien de les semaines waaye ci bisu àllarba bii acrostiche la première lettre wax ni barakatul baaxi lezi waalaa nii nafat li xayri kulla man xalaat nii donte du ñu ko wutal noonu itam waaye ndem tudd na ko rek am na nee la grâce de son Seigneur ci la amee li ñu tuddee tata barrage digganteem ak ennemi ku tedd ki nag bu waxee loolu bu dee ñun bu ñuy jàngat Iblis ak njabootam lañu koy interpréter d'abord. ndax suñu boroom ci ay créature am bu dee nun ñii nga xam ne nun nooy doomi aadama dafa tànn ci ñun ñoo xamante ni bii ñooñu àlla ku lexalin iblis moo leen di coiffé duñu ko yëg nag ndax iblis invisible la waaye dafa bari pouvoir te bu ngeen déggee baatin du dara lu dul li nëbbu lu ñu gisul fi mu toll suñu xol yi bu ko médecin ubbiwul rek laa yuraa kenn du ko gis nga xam ne suñu waxtaan ak yéen yéen taskati xibaar yi fi nu koy tàmbalee mooy situation réew mi fi mu toll bu ñu ko sañee bu ñu dee wax utiliser baatu interpellation lu jiitu ngay ñëw ci responsable yi famille yi ak kuréel yi ndax Sénégal famille boo dem am nañ kilifa moo xam Touba lañ ko am wala Tivaouane wala fii Laayeen gi wala Ñaseen wala fu ñu ko mën a ci jàng bi ci chrétien yi famille boo dem rek am nañ kilifa ñuy ñaan kon kilifa yi les responsables religieux d'abord kenn ku nekk wax ak ñi nga xamante ni bii yow la ñu doxalee seen diggante ak yàlla fàttali leen niyetul xayri wa xawlul xayri wa fi'lul du caa génn wax naa ko démb sëriñ Muntaxa nga xam ni mooy a cheikh shuyuux du caa génn lépp rek ñu buggan ko xanaa ab tool moom bu dee jëwri ñi almuridiyee itam mu dee ab tool xanaa tool bi du caa génn moom rek lañ koy bàyyee mu dajale outil yépp di bay fépp hmm? te muy ñetti niveau suuf yu bokk yoo xam ne fii daa yomb fii yombul jafewul fii jafe wax dëgg yàlla kenn ku nekk am nga ci rôle bu ñu ci jógee moom wax dëgg yàlla kilifa yi ci des yëpp kenn ku nekk am nga ci réew mi am rôle boo war a joué ci doomi réew mi moo xam ci góor ñi moo xam ci jigéen ñi moo xam ci mag ñi moo xam ci ndaw ñi loolu moom ñëpp la war responsabilité la ndax yow ma nadduhum kulla unaasin bi imaamihim bu ëllëgee bu ñu taxawalee les responsables ñoom la taxawal bien waaw ñoo joxe ay compte rendu moo tax doon kilifa ñu yilif la mu gën a sedd yilif la moo gën a sedd di doon kilifa ndax boo doonee kilifa yow bu ñu la yilifee rek bu ëllëgee sa kilifa lañuy ñuy woo loolu moo tax ñuy ñaan responsable yi bu ñu ko ñaanee kilifa yi ba noppi nag ñëw ñaan ko kilifa yi adduna bi nag bu dee ci lu jëm ci wàllu ndaw ñi bu ñu nee astibyaat rek bu ko defee adolescent yi bokkut ak nag ashabaab ñi nga xam ne dem nañ ba am 17 ans 18 ans jëm kaw di dem nekk ci daara ju mag yi ñooñu dafa am lu ñu leen di saytoo xale wax naa ko démb xale bu amee ñeenti at ñetti at ñeenti at dëgg la am na lu xew ci àdduna bi bu dee ci ndaw ñi nga xam ne ci tubaab yi la njëkk a xewee naar yi américains yi li ñu tuddee dessin animé nga xam ne xale yu ndaw yuy tuuti yi trois ans quatre ans seen yaay yi waaw dessin animé yi ñu koy màggaale nag li ñu ci taatan li ñuy li li ñu ci jële képp la ñuy mën a xam di ko màggaale loolu it ñu koy bàyyi xel ba bu xale bi amee juróomi at juróom benn at nga koy xiirtal ci di ko jàngal di ko fàttali waaw ay maamam di ko fàttali di ko jàngal yoo xam ni balaa dem ca daara ja ca école bi ñoo fekk mu xam lu bari ci kër gi loolu moom parents yi la ñu koy ñaan buñ ci jógee ñu ñëw nag ci politique bi ak njiitu réew mi ak ñi ko seqal responsabilité responsabilité la rek waaye dañoo tolloowul responsabilité yi ñoo tolloowul fi ñu toll responsabilité Serigne Mountakha tolloowut ak benn waaw ndax li muy almuridiya tax fi ñu toll responsable le président Macky Sall tolloowut ak benn sur le plan temporel bu ko defee nag loolu dafa laaj discernement kenn ku nekk citoyen la ñu ñun ñëpp waaye nag war a fax naa ban doomu mu faw xa ban dara jaat yàlla yemalewul ñun kay nooy am suñu constitution di yemale ñëpp dans la et cetera waaye yàlla moom yemalewul tilka rusulu fadal na ban doomu àla bandin nit ñi mënuñoo yem bu doon loolu ñëppay tolloo bu doon loolu ñëppay ñuul bu doon loolu ñëppay xees hmm? moo tax faw settantal kenn ku nekk nga xool dayoom la ko yàlla may nga nangu dogalub yàlla la ko yàlla may nga nangu dogalub yàlla amaa jëmm yi xew nag ma dellusi ci ndaw ñi te ñu koy gis ci àdduna bi yépp waaw makka rek nga ko dul gis lu mat a bàyyi xel la maanaam makka bu fa dee am itam yaakaar naa ni makka ak madina al munawwara ñaari dëkk yooyu makkatal mukarrama ak madina al munawwara yi xew ci àdduna bi foofu la gën a néew néew mu amul fa de waaw néew mu amul fa de ak it xale yi def événement am ci biir politique bi xale yi ci occasion di def naka su dul noonu est-ce que seeni leader ñoo leen ko sant hmm? est-ce que seeni leader ñoo leen wax ni taalal yi fi jàmbur sàcceel yi fi jàmbur dëgg la sàcc moom am na fu nekk màkka sax am na fa ndax asaariqu wa saariqatu waaye faqtanhu aydiyahumaa jazaan la yàlla wax loolu daa xewul fii rek Serigne Touba moo am loo xam ni ixtasani lahu bi ma lam yëkku nii wala yëkku ni li si waaye bikku ni moo tax bu ñu nee diw ray na itam du tax mu raylu ndax dafa am lu ma ko soppee dafa am lu kenn amul bu ñu nee diw sàcc na it du tax mu dagg lu mu dagg lu loxoom moom ko tedd ki foofu la yërmandeem toll loolu moo tax li mu daj lépp ak fi mu jaar yépp ba mu ñëwee nag liñ ko doon def lépp mu baal ñépp waaw kenn jéemuta topp tànkam waaye dafa jàngale bàyyi fi li mu jàngale mooy bon intention bonne parole et bonne action niyatul xayr wa xawlul xayr wa fenlul xayr wa mulazamatul xayr ànd ak constance loolu la jàng léegi nag comme ñun dañoo lompañ suñu kem kàttan fi suñu niveau suñu dimension foofu la ñuy waaye nañu jéem c'est l'intention qui compte nanu jéem rek ndax dëgg la yàlla mooy baaxal mooy jubal gaa waaye Sëriñ Tuubaa dafa daan signé wasalaamu ala mani tabahal huda jàmm doonu lu ñuy ñaan ab dëkk la daam yoon wu fa jëm ba bëggee dem mosalaa jaar yoonu rimbax doo yegg loolu moo tax ñu ni bis bi mënu ñu cee ñàkk a wax ndax xew-xew yi am ci politique bee violence bi am dëgg la xale yi koy def sax dañoo minoritaire am na organisation boo xamante ni bi bu amee tee képp kuy responsable te am capacité def dara ñu encouragé ko appuyer ko bu ñu ko defoon rek fi mu toll lii xew lépp lépp lépp ñoo ko teg suñu bopp ndax dañoo fekk yoon wi nit ñi fu ne nu fay jaar bañu jaar ci yoon wi muy waa pouvoir di waa opposition <laughs> li ngay wax da leen koy séddale waaw ndax ku dul yàlla yàlla rek moo dul juum njuum tey day am collaborateur yi chef bi mën naa nekk chef waaye alayhi salaatu wasalaam ba ko yàlla ne dama laa yónni def la xaatam nga complété yonent dafa daal di tànn fukki jeune ak ñaar waaw ku nekk di yóbbu correspondance fu nekk te da daan diisoo ñoom bu jibril ñëw ni ko yàlla nee na rek day waxtaan ak ñoom day concerté waaye concertation yi itam ak daan gis ku ñëw ci moom ni ko day jébbal yàlla boppam jaare ko ci moom dugg ci biir lislaam fekk espion la te bu ko xamee ci baatin itam da ko ciy bàyyi da ko ci da koy da ko ciy bàyyi ñu koy observé dëgg la bu rey jotee nag dinañu rey waaw bu pune pune jotee itam dinañ la jàpp nañ la kii waaye yooyu yëpp Serigne Touba mi doon lépp nag moom xool leen yërmaane ji mu indi ndax ku tedd ki bañ leen nekkatu fi ñu yóbbu ko Touba ak léegi ndax dégg ngeen ñu rayante ci ak xilaafa ndax kenn mësu na ko digg te am na ginnaaw yonent bi am na kon bu nee am na lu kenn amul bul ci génne kenn ixtasani la loo laahu bi maa lam yëkku nii te walaa yëkkunu lii sa waaye biku amul woon te dootu am li mu am moom illa yaxaadallahu maalam yakuni wala yakunu abadan li kii gis ngeen tant que système colonial bii ñun ci la ñuy gouverner suñu réew yii kenn mënu ko fee jële dama bëgg sama baat ca kaw ñu dégg ma faw complexe bi ñu jël ko teg ko fee xam ne am nan koo xamante ni bi moo ni amarani rabbi bi an usarriha bi an usarriha bi am na ni malazun wa mafsahun fa man araada alxayra fii kilta yi daare ni fal yelus bii fekkoon daf koo wax rek yem ci nga ne waaw waaye dafa def lu tuur ànd ñoom fu nekk ñu def ko lu nekk jéemal ko lu nekk lu ñu ko jéemal tey réussir ñu balaa ëllëg ñu fanaanoo lu ñu ko war a jéemal ca ëllëg sa toujours nee na day jàpp ni lii ñëw suba mooy gën a metti lu tey loo waral ci bisu samedi mu ne axriji adaka sarmadan min rahmatik waleen taqam minhum bi abqa niqmatik te bi ñu koy mettre au poteau fu mu toll ñu ngi taalif du ci ne day bàyyi ba jël plume bi ak encre bi rek déedéet fu mu toll même bi ñu ko taxawalee di ko mettre opoto poteau mi ngi taalif ilayka an xayta masir yi yaa ahaddi lay wax yàlla sama démarche ci yow rek laa jëm waaye nag xuttali maa laa yaraahu man jahad dafa nga ma loo xamante ne bii kuy weddi du ko teg bët jaar foofu yépp ak ñoom ba ni ma leen ko waxee léegi rek ñëw fii mu wax na lu leer wax na ni sunu der bu ñuul bi kontuur li ci xol ak li ci bopp bi moo compte c'est la compréhension qui compte fa lay su yujibu sawaadul jismi safahatal fata wa su al fahmi mu wax na ko hmm? ñu war a ñeme benn doctrine bu bees ñun Sénégal ci ay réforme ñu war a ñeme le réalisme africain pensée boo xamante ne bi ci un africain un sénégalais un saint de Dieu ci la jóge def ko réceptacle sukkandiku ci pourquoi pas li kulli shay'in ajal humril insani amru bi tadrij dund ay étape la étape bu nekk ak la mu laaj nit ku nekk am nga ñetti étape yoo xam ne bu ci ne man nga caa wuy ji sa borom waaw am première étape boo dimul deuxième étape bi bu ñëwee boo dimul troisième bi mën a koo rëcc imaanan wa islaaman wa ihsaanan kooku programme la ci vérité absolue moom nag la ko yàlla jox maddaliyal xaqul mubinul xaqa wa bil xiyaaral ulama raqa la wax boo nekkee savant noppi nga koy soog a soxla moom ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul nga am ko ci réew di def suñu yi nii def mel ni dëndul bàyyi xel dee baax dal mawt pouvoir pouvoir yàlla rek ko am waaye lan la wax mulku ilaahiya gadan li zaati wala si yan hu dararun li zati gis nga ñii la ma waxoon tubaab ya ak tubaab ak tubaab ya nekkul ci po bi ci mentalité la nasaraan waaye lañ leen doon waxoon mulku ilahiya gadan li zati <laughs> le souverain du Seigneur de mon Dieu m'appartiendra demain waaw ah, te boobu boo ba sam dafa spécial bokkut ak souverain yii déedéet parce que bii daf ne yàllaahu yaa waasuhu yaa zal mulki waxabatali muxjila ahlil mulki nee na ko yàlla yow mi nekk fépp yow mi moom souveraineté yow mi moom souverain yaa ma jox loo xamante ni bi dafay gàcceel ñi nga ko jox ñëpp ñi nga jox nguuru àdduna ñëpp man bi nga ma jox dafa koo gàcceel waaw ni ko chattaana ma bay na lesi xaddaha ndax ñoom bi nga leen jox dañ ci xiroo ko ŋaayoo ko xëccoo ko rayante ko turante dërëm bu bay na maa xusu ahazu par rapport ak man li nga ma jox waaw base wu ci neetu xayri wa xawlul xayri waaw jazaan wa moo tax comme le bien de tous les temps de tous les jours de tous les semaines de de toutes les semaines maanaam fu yiw nekk rek yàlla jox na ko ak ci waxtu wu mu koy génne ndax suñu borom malayka yi bu ñuy séddalee du ñu juum malaaka du juum ni ngay def nii ku la bëgg a jox ko ñaari junni far juum jox la junni wala yooyu déedéet malaaka du juum waaw ndax dañoo maîtriser seen liggéey am du ñu juum waaw te lu ci nekk waxtu wi ju ko war a def du ëpp du yées te kat li gën a yéeme mooy benn malaaka buy xëy xool lawhil mahfuus xool li nga war a def ci journée bi te doo ziare ji Tuubaa dellu amul lu samay wax di moo ko wax chakar ni inda jamini junubihi mus xasadu ziyaarati min hindihi night and day loolu loolu booy li yéeme malaaka li mu bëgg a def gisoo avion du dañ naan avion bi dafa tardé mu yéeg ba ca kaw mu ra mu rattrapé heure bi ah, loolu malaaka kooku daal loolu moo tax waa politique bi oh ci kanam mooy dara lii li xew da ko nuuru rek day nuuru dara waaye du dara dëgg la dañuy bañ may codé waaye faw may codé waaw ndax itam nag <laughs> xel moom li muy jariñ mooy ñu ne la lii baat bi nangam la tudd hmm, nga xool ba xam baat bi lan la mën a jariñ ak lan la ñuy jur bu du loolu xel du liggéey waaye bu ñu la leeralee lépp te ngay xel <laughs> am ñoo xam ne dañu may dàkkaar fu naan fexeel ba mu leer ma luy loolu fexeel ba mu leer li may wax day leer naññi ku mu leeru ci sa bopp yaa yaa war a xoolaat sa bopp li ma wax dafay leer gis nga muy Macky woo Idrissa sa koo dama ne woon du ma tuddi tur mais mun ma leen ñàkk ba ñu tudd Macky Idrissa Sonko euh, Khalifa ñoom ñëpp daal de mënu maa tudd ñëpp nag waaye day am ñoo xam ne ba leen tuddee yóbbaale nañ ñi ca des waaw ñi ca des da jël parce que tur woo gis dina am miim wala mu am waaw wala faa ñi ca des ñëpp dangay leen di dugal ci case yooyu ma leen di invité ci le réalisme africain ci alxadimia ndax man maa devenir gis ngeen gouverneur général ba ngeen daan dégg bi a amagul indépendance soro balaa jël suñ tool xam nga général Kara rek la ñu wax day def gouverneur général dal xadimiya te mu ngi sunu kanam te bu ma wax ji sàppee man man am naa sama constitution bu bees bu nga ma denc gis nga seen yi ñuy def buñ ko bàyyi <laughs> Sénégal coono ñu ma bari ca kanam waaw ndax man ñaar fukki at ak ñaar laay nangoo am donte maa ngi waaj a boucler soixante dix yi tam lank laay def benn deux ans laay nangoo ndax leader laa du ma li ma man sëriñ mënu ko li may wax sëriñ di ko wax li may def sëriñ di ko def tey man la neex ma solo ni amiin bëggoon na maa dugal ci geneen col ma ne ko bàyyi ma tey rek ma doon almbuudu almbuuda fi ñu toll réew mi defe nañ ne am nañ problème mais problème amagul mooy bu ñu gàntalee li may wax loolu mu ngi ci kanam il faut ay réforme am soxlawuñu fi ay élection élection yi nañ ko soppi def ko élection yi bu na reew nañu ko soppi def ko référendum laaj Sénégalais yi ba xam d'accord nañ ci projet de société ku tedd ki le réalisme africain wala déet est-ce que d'accord nañ ci constitution bi ñu soppi ko wala déet ah soxna si yéen ah yéen di wax dëgg yàlla yéen yéen ñun de bëgguma leen wax dara waaye daal yéen ñaan ñii laay wax bëgguma leen wax dara de waaye wax dëgg yàlla ndax bi ngeen a bàyyi seen lépp ñëw fii moo tax waaye xam nga yéen métier malaaka ngeen yor yéen xam nga ñuy wax liberté rek kay bu bàyyi leen ko <laughs> démocratie ñu bàyyi ko gaañ ñi ñoom mag yéen liberté na ngeen ko bàyyi parce que métier malaaka ngeen yor bu c'est très dangereux waaw métier malaaka la ngeen yor yéen ak médecin yi métier malaaka ngeen yor moo tax man toujours dama leen di respecté moo tax ñi ñi ëpp ci yéen dañuy mën a gént waaw loolu koy Modou Mbacké leen koy wax hmm. ñun daal soxlawuñu élection fi ñu toll ndax bala nga ne naam ne fa nañu fexe ba xale yi dal ñu fexe ba wax ak Ousmane Sonko fexe ba wax ak euh, Macky mi mu ko siqal ak collaborateurs yi Macky te nag fa demtu baatilan bi xaqin fa zahar la ko tedd ki wax ca wa kaana xaqan wali ilaahi kasa saq yihi dahar gis nga dëgg moom bi mu fekkee lu dul dëgg rek martub dëgg la jël na ko mu ne tasar nanu ko nangu dëggug yàlla gi moom la ko jox Sëriñ Tuubaa la ko jox ñun dëgg gi mënu jox day soppeeku ndax nee na nu jibril nee noonu inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bu soppi jotee nooy soppil suñu bopp li ñu bëgg a soppi ñun mooy constitution bi waaw li ñu bëgg a soppi mooy turu président de la république muy tudd gouverneur du Sénégal wala nangam wala gouverneur de la nation wala ma ak nanga ñun ay réforme la ñu bëgg année prochaine soxla wuñuy élection bu ñu demee ba ne élection day am nag nañu nangu ma bokk amul jàngul tubaab ak quatre-vingt-un ak léegi day bëgg a yàgg waaw bàyyeen na lii la alim wal xabiru tabb yi ne man tëdd biiruhu tëdd biiru waaw discernement mu am solo xam ki mën a ki mënu bari luy sooxee ci état mooy dangay jox ab liggéey koo xam ne mënu ko <laughs> te loolu ñàkk topp dëgg a tax waaye mbir yi eh mbir yi daal wax dëgg yàlla buñ bëggee mu soppeeku te aw yoon nañ ci boole religieux yi bu fekkee dëgg rek la ñuy man nag fas yéene naa d'accord dialogue baax na lool ñoom ñu ngi commencé dialogue ci après midi bi Cheikh Mbacké sama doom moom ma fa war a teewal waaye dialogue dafa am lu ko gën a baax loolu dinañ ko waajal te penku lañ koy defee waaw benn collégial boo xamante ni bii luy nuru assise internationale ñu fay def bu ñu paree ci li ñuy def jël réalisme africain expliqué leen ko ba mu leer nañ intellectuel moom boo ko joxee document bu ko liiree léegi nag bu ñu nee li fi tubaab yi indi woon képp ca la nuy nekk ñun suñu jaan wàcc waaye bu boobaa de man buur bu xonq cooy laay doon Touba Chikoori waaw ak sama autonomie ak samay soldat am ay gendarme am ay gémi lépp laay am bu ñëwee li may wax man du fi mu <laughs> bu boobaa nag la problème bi am daal laa ni woon faw ma jàllale ko